Bismillah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فإن رمضان شهر الصبر ومدرسة الصبر فالصوم تعود على الصبر والتمرين عليه ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ginnaaw loolu xam ngeen ne Ramadan weeru muñ la bokk na ci liñ war a jàng ci weeru koor mooy muñ
sahru sabr weeru muñ wa madrasatu sabr ak école bu ñuy defee formation pour jàng muñ xam ngeen ne muñ lu yàlla santaane la hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy jàmbat jafe-jafe risaala gi ko yàlla yónni woon yonent gi mu jàkkaarloog waa Màkka ci ay jafe-jafe borom bi tabaraka wa taala def koo muñ loo fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal comme ñi la fi njiitu woon nekk ay yonent ni ñu muñe woon ab julit li mu war a jàng ci weeru koor li ci njëkk mooy muñ borom bi indil la école boo xam ne dañ ciy formé wu mu nekk madrasatu sabr école boo xam ne dafa laa war a jàngal muñ pour bu koor jeexee noonu nga tàmmee woon muñ ci weeru koor nga continuer noonu di jàng di continuer mën a muñ ni nga muñ a xiif muñ ko mar muñ jël alalu jaf alalu jàmbur wala triande wala wala wala déglu lu bon xool dox ko wax ko noonu nga ko muñee ci weer wi ba kenn mun la koo def loo dañu bëgg bu weeru koor jeexee noonu nga jànge woon muñ nga continuer noonu moo tax mu ne fa inna sawma tuawidu ala sabr koor day tàmmloo nit muñ xoolal weeru yàlla julli baa ngi ni mën a muñ bànneexi bakkanam yépp mu lem ko sànni ko kenn mun koo dégg kenn mun koo xool loolu bon kenn mun ko ko dégluloo kenn munul tax mu sol dàllam dem fa kenn munul tax mu lekk kenn munul tax mu liggéey ci waaw noonu nga muñee loolu di aar sa koor noonu ñu muñee loolu di aar suñu koor lan moo tax bu koor jeexee du ñu mën a continuer muñ mbokk yi yàlla ci yàlla tabaraka wa taala wa tamrin alayhi koor dafa ñëw pour ñu jàng mën a muñ pour ñu jàng muñ ndax jullit dafa war a nekk muñkat yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li ko yàlla tagge mooy yow muñkat nga yonent bi lépp la muñ muñ na jaamu yàlla muñ na ay nattoom waaye muñ na nit ñi muñ na këram muñal na saxaaba yi loola tax yàlla bi mu koy tagg lan la ko wax fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik ci yërmande la yàlla dajale gaa yi ñu wër la soo nekkoon ku xat ku bon xol kon tey kenn du nekk sawet kon jullit fokk mu jàng muñ ndax koor dafa ñëw pour nga tàmm ko looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne weeru koor weeru muñ la ci hadis boo xam ne tirmisi yi génne na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne as-sawm nisfu sabri koor genn wàllu muñ la ndeke koor bu nekkee genn wàll muñ mooy beneen genn wàll gi li ngay xiif li ngay mar yëpp soo muñul du dem koo gis ku woor rek boole na ñaari jaamu yàlla boole na koor boole na muñ kon koor mbokk yi lii mu ñëw di mu dinu tàmmloo dinu miinloo moom mooy jaamu yàlla loolu moo tax borom xam-xam yi ñu ne inna sabr salaasata anwa muñ ñetti xeet la sabrun ala taatillah wa sabrun ala maharimillah wa sabrun ala aqdarillahi almuhlima ñetti yëpp soo ko boolee yàlla nangu sa koor bu njëkk mooy sabr ala taatillah muñ topp yàlla léeg-léeg nga gis ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp jaamu yàlla dafa yomb jaamu yàlla dafa métti xoolal koor rek fajar geeg léegi lekkoo naanu waxoo fi dégluwoo fi demoo fi jëfoo fi yëpp yaa ngi jéem respecté li la sa borom tabaraka wa taala rëddal nga gis yeewu fajar ci jamonoy set dox wëri fa ngay jaamoo yàlla dem di julli ji jàkk loolu mooy topp yàlla soo muñul doo mën a topp yàlla koo gis mu mën a muñ xamal ne ku mën a topp yàlla la koo gis mënta muñ xamal ne mënul topp yàlla sabr ala taatillah jaamu yàlla dañ koy muñ suñu muñul du nu jaamu yàlla waaye sabr ala maharibillah foog ñu muñ li yàlla araamal képp koo gis muy xët di def li yàlla tere mënul muñ ndax ñàkk muñ moo tax mënta téye boppam ba lu dul mu dem defi li yàlla araamal ndeke da ngay muñ topp yàlla ba metti nga muñ mooy yàlla waaye wa sabrun ala aqdarillah nga muñ dogali yàlla yi nga muñ ko li yàlla rëdd ci sa kaw dogal ko nga nangu nga mun a muñ loolu ndax yàlla moo ko teg sa kaw loolu tax buñ jàngee arkaanul iman danañ fekk borom xam-xam yi di ko xaaj juróom-benni xaaj xaaj bu mujj di juróom-benneel bi mooy al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi te boobu lañ am problème mooy muñ ndogalu yàlla su neexee yàlla la su mettee yàlla la su yombee yàlla la su jafee yàlla la soo wéree yàlla la soo tawatee yàlla la lépp nga koy delloo borom bi mais ñun problème boobu lañ am mënuñoo muñ su neexee yenn saa yi sax su neexee ci ñenn ñi ñu ne ndeyam a ko liggéey wala ñu ne waaj la ndax dooleem ndax capacité am ndax xam-xamam ndax nekk nekkam technicien au lieu ñu delloo ko yàlla fekk jullit bi moom ci dogalu yàlla tabaraka wa taala lay dox yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na bis rek muy nattu sahaaba yi mu ne leen am uminuuna antum ndax gëm ngeen yàlla am uminuuna antum ndax yéen gëm ngeen Omar ne ko naam ñun de gëm nañu yàlla te gëmuñu gëmantuwun de gëm nañu yàlla dëggi dëggi gëm yonente bi ne Umar fa ma alaamatu imaanikum luy wane ne yéen gëm ngeen Omar ne ko narda bil qada wa nasbiru ala al bala wa nashkuru fi raxa narda ala al qada lu yàlla gëdd rek nangu na duñ fi nekk mu naan su ma defoon lii su ma demoon lee su ma waxoon lii su ma naanoon lii su ma takkoon lii kon du ma dal déedéet narda bil qada ñun li yàlla rëdd suñu kaw nangu nan ko yonent bi ne ko ñaareel Omar mu ne ko nashkuru fi raxa su neexee du ñu sant kenn ku dul yàlla ñun yàlla rek la ñuy sant du ñu sant keneen wa nashkuru fi raxa su neexee rek yàlla la ñuy sant ndax yonent bi mënu ko jàngaloon mu ne ko ñetteel Umar mu ne ko nasbiru alal balaa bépp balaa bu yàlla mun a teg suñu kaw dañ koy muñ duñu jàmbat xoolal tey ñun réewum njàmbat la nu nekk daanaka boo dégloo rajo wala nga seet télé da nga yaakaar ne jàmm xewul ci réew mi ñëppay jàmbat ki yàlla may sax ki yàlla may sax day jàmbat ki yàlla may du wax mukk alhamdulillah ki yàlla may nga xam ne gii jàll na day jàmbat da ngay yaakaar nit nga fëx daw dem ci moom nga ñëw fekk moo la gën a mën a jàmbat wala mu sant yàlla xam ne yow mi ñëw ci moom moom moo la tane waaye day jàmbat kon lan mooy sunu màndarga ngëm fama alaamatu imaanina mbokk yi koor dafa ñëw pour ñu jàngal ñett yooyu ñu muñ topp yàlla muñ mooy yàlla waaye muñ métit yeeg jafe-jafe yeeg jàngoro yi wa tajmau hadihi salaasa kulluha fi sawmi ñett yi ma wax yëpp mooy muñ topp yàlla muñ mooy yàlla muñ jafe-jafe yeeg jàngoro yi yëpp da nga koy fekk ci koor fa inna fihi sabran ala taati llah wa sabran an amma harrama llah mu ne da ngay fekk ci koor muñ topp yàlla te ñun yëpp ñu ngi ñu ngi takk ñu ngi jéem a muñ topp yàlla tabaraka wa taala ci sunu koor pour sunu koor baax waaye da ngay fekk ci sunu koor ñoo ngi muñ li yàlla araamal te pourtant da ngay fekk sax lenn lu ñu yàlla tere muy lu dagan ci ñun waaye tey jii fii nu toll ci weer wi ci waxtu yi ci bëccëg yi yàlla ara loolu dagaloon ci ñun yàlla tere ñu ko léeg-léeg nga gis koo xam ne daan lii yàlla tere kenn mënu koo bàyyi non lii kenn mënu koo bàyyi ah yéen lan ngeen bëgg nag du ñun ñoo bëgg de du man maa bëgg du yow yaa bëgg yàlla la yàlla moo nu xool ne nu luy bu leen ko def pourtant ñun ñëpp xam nañ ne lekk ak naan dafa dagan ci ñun yàlla moo ñu ne kulu wasarabu lekk leen naan leen waaye moment yi ñu toll yàlla moo nu ko tere fi fajar di fenkee ba jant di so yàlla ne na diir bi bu fi kenn lekk ku fi lekk rek ma digaale kook yow lu dul ku feebar lu dul kuy tukki lu dul ku am ngànt lu dul borom xam-xam yi ne la ñii la yàlla wax ne ñii moom mën nañ fee lekk mën nañ fee naan waaye ñun ñeneen ku fi dëgër bopp lekk doo ko jëflanteeg man doo ko jëflanteeg kenn yàlla nga koy jëflanteel te boo duggee bàmmeel mu xam nga xam kon nanu xam ne nii ñu muñee lii yàlla nga xam ne daganoon na ci ñun yàlla tere ñu ko ci bëccëg weeru koor gi sunuy soxna daganoon na ci ñun waxtu wu nu nekk ñu jëflanteeg ñoom lekk daganoon na ci ñun waxtu wu nekk ñu def lu nu neex naan waaye xoolal yàlla mën nañu fii moom waxtu wi ba waxtu wi bu leen ko fi def pourtant ñun ñëpp nag mu nan ko te ñun ñëpp ñoo ngi jéem a maîtriser suñu bopp ñoo ngi jéem a nangu loolu yàlla wax loolu nag la ñu bëgg ndeysaan bu koor jeexee nga continuer bu fekkee lii dafa daganoon ci yow yàlla tere la ko kon massalu aram kon massalu aram lii dafa dagan ma lii ma lim sànq sa soxna lekk naan ndékki añ lii dafa daganoon ci yow waaye yàlla moo la ko tere ci bëccëg yii bu fekkee dafa daganoon ci yow yàlla tere la ko fii nekk mu araam ci yow kon massa li yàlla ne lii moom bu ko kenn jege waxtu wu nekk nag loolu yàlla utalu ko waxtu utalu ko bis utalu ko semaine dafa ne lii moom ab jullit du ko jege wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo bàyyi leen sàngara bàyyi leen carte bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam yooyu moom dafa araam waaw kon bu fekkee ne mën ngaa takk sa bopp mën ngaa muñ ba mën a def li nga xam ne dafa daganoon ci yow ñu tere la ko nga bàyyi ko kon lu araam nag loolu moo ci yéen loolu rek moo tax koor jóg pour lu araam lu mag lee ñu ñu tere woon mun nu koo bàyyi yàlla waaw léegi comme mu leen bàyyi lu araam li ma tere kon bàyyi leen li li ma leen daganoon ñun ñëpp ñu bàyyi kon nag li araam moo gën a yey pour ñu bàyyi ko mbokk julit yi da nga fekk koor mu dajale ñett dajale muñ topp yàlla dajale muñ bàyyi lu araam waaye dajale muñ métit xoolal métitu xiif métitu mar ah sonn waaye yàlla tabaraka wa taala nee na nga sonn ngir man looloo tax ixwat al iman wa hada al alam an naasi من الأعمال التاعات يصاب عليه صاحبه كما قال المجاهد الإمام مجاهد تلك القرآن بمكبو بمني في الآية بي ذلك بأنهم لا يصيبهم زمن ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله mu ne ñii nga waroon dañ cee bokk ndax da ngay fekk ci koor la ñuy muñ mar muñ xiif muñ jafe-jafe te aaya bi pourtant bi ko yàlla di wax ñi doon jihaad la mu ne ay nit a ngi nii di jihaad ñoo ngi génn seeni kër wàcc seeni lal sori seeni soxna gàddu seeni jaas yi di xeexi ci yoonu yàlla yàlla mu ne ñooñu génn seeni kër du nu mar du nu sonn duñu xiif ci yoonu yàlla réer lu dul loolu yépp yàlla dina ko def ci seen ëllëg seeni saaku tiyaaba waaye sëriñ bi moom nee na aaya bi daf cee bokk dafay firi ku woor ngir yàlla tabaraka wa taala noonu di yàlla di fayee jihaatkat yi noonu la la yàlla tabaraka wa taala di fayee kon mbokk yi bu ñu tay bu ñu découragé bu ñu jéem a ay buntu yu ñu génnee te yàlla moo santaane koor nga gis ay jullit ne yow di wut ay buntu yu ñu génnee ay génnukaay ñun duñu woor ñun ndogu la ñuy joxe ñun sàngam ñun mbooloo sàngam lañ bokk ñun diw mooy suñu kilifa yooyu yëpp réer la ñàkk a xam ki la sant jaamu yàlla gi la mbokk yi lu tolloog atum lëmm ngay lekk at boo ko tënkee di nga ne fukki weer la ak ñaar yàlla woor loo la ci benn weer te weer wi ma la woor loo woor loo wu la weer wi yëpp da ngay lekk di naan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alxaytu al abyad min al xayti al aswad du loolu ngay def lekk fajar gi fa muy ñuulee ba fa muy weexee nga woor loolu guddi jot yàlla mu ne la nga dog lépp lu ma la tere woon ci lekk ci naan ci sëy defal kon soo nattee yàlla fi mu la teree lekk ba fi mu la waxee nga naan loolu ab jullit bu gëm yàlla tabaraka wa taala war na koo mën a bàyyi au lieu que mu jàpp ne koon bugal la ba tax muy dugg di ci ay mbooloo wala muy wuti wala wala muy ay génnuwaay na xam ki ko sant jaamu yàlla gi kan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour soññ ñu pour wax ñu koor ngëneel yi ci nekk mu ne bal inna sawma yudaafu mudaafa xaasa zalika bi anna allaha azza wa jal yatawalla jazaau saimin soo jullee yàlla bu lay fay mën na laa boole ku la fayal ku la fay boo aji jee màkk yàlla bu lay fay mën na laa boole ku la fay lépp loo def yàlla bu lay fay mën na laa boole nit wala malaaka wala mu jox la fay gi amma koor abadan yàlla moo lay fayal boppam tabaraka wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ci hadisu abu hurayra mu ne kullu amali ibnu aadama lahu alxasanatu bi asari amsaaliha ila sab'u mi'ati diaf lu nit def boppam la ko defal ba mu des koor koor man yàlla maa ko moom fa innahu lii wa ana ajzi bi innahu taraka shahwatahu wa taamahu wa sharaaba min ajli yàlla mu ne waa ji li tax ma koy fay tey man ak moom du ma yónni kenn muy dox sama diggante moom ndax dafa bàyyi lekk bàyyi bànneexam bàyyi mar bàyyi naan mar ngir man yàlla tabaraka wa taala kon maa koy fayal sama bopp kon ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole ñi ci ñooñu nga xam ne moo ñuy fayal boppam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فإن الصيام من الصبر وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب borom baa ngi fàttali koor dafa ànd ak muñ ñoom ñaar ñooy ànd koor ak muñ kon yow julit bi yëgal ne borom bi tabaraka wa taala wax na ci suratu zumar aya 10 ñi nga xam ne ay muñkat lañ ëllëg man yàlla maa leen di fay kon nañu muñ yàggul waaye bu ñu jéngu lan mooy différence muñ ak jéngu mooy ki jéngu dafay bëgg mu gaaw a jeex ba mu noppalu waaye ki muñ moom bis bu nekk dafay xam ne tiyaaba lay am dama koy def ngir yàlla kon bu kenn ci ñu wax ne nanu jëngu weer wi mu jeex ñu teg ko de côté ñu song leneen déedéet jaamu yàlla bu ko kenn wax ne dama koy jëngu jaamu yàlla dama koy def yaa ngi kontaan sa xol a ngi féex yaa ngi bég ndax ki nga koy defal mbokk yi kenn ci ñun soo doon jëndal sa soxna sax benn objet soo ko jëndee ba àmbale ko mu nekk cadeau boo koy indi ci moom da ngaa bëgg mu kontaan nu mu gën a rafetee rek noonu nga koy indee bu doon sa benn kilifa ngay jëndal dara da nga koy defar ba mu baax buñ ko bëggoon laxase ay sagar yu tilim sax wala këy yu tilim da ngay bañ du tax ndax da ngay bëgg kilifa gi na kontaan kon ñun dañuy jaamu yàlla lan moo nu war ci jaamu yàlla gi mooy ñu fexe sunu borom bég ci jaamu yàlla gi sunu borom séen la yaa ngi woor yaa ngi xiif yaa ngi mar yaa ngi def santaaneem waaye yaa ngi ko def nu mu gën a rafete loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñuy soññ pour ñuy jaamu yàlla mu ne nañ ko rafetal ibudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka loolu mooy ihsaan mooy rafetal maratibu diin salaasa al iman al islam al ihsan al ihsan nag mooy rafetal mooy jaamu yàlla gi ngay def na rafet sooy julli ñu ne na rafet bul gëpp gëppal na rafet ngay woor ñu ne na rafet yonent bi ne même booy rendi xar-xar bi na nga ko rendi rendi ko rafet ñu ne ko rendi paaka ak deret mu ne waaw mun naa rafet ñu ne ko nu muy rafetee mu ne ñu ñàdd xar mi paaka bi ñu ñawal ko ñu bës xar mi li ñuy rendi ñu rendi ko mu teel a dee noppalu moo gën nga bàyyi jël seng boo xam ne ñawul ñaw na ngay xiit xiit yëf yi du dagg ki ngay rendi du dee muy sonn kon yonent bi ne paaka bi na ñëw pour li ngay def mu rafet même ci rendi yonent bi ne rafet kon jaamu yàlla nag kon lu mu mun a doon ci ñun lu yàlla sàkk ci ñun suñ koy def nañ koy def ak mbëgg ak mbëggeel nañ koy def ak sopp nañ koy def ak bëgg kiñ koy defal su boobaa la nu yàlla di fay waaye di def jaamu yàlla boo xam da nga koy def sa xol bi tàlliwul sa kanam gaa ngi lëndëm yonent bi xëy na rek jàkkaarloo kenn mu ne ko yow maa li araaka abusan lu tax nga ñëkk nii lu tax sa kanam gi lëndëm mu ne dama woor inni saim inni imruun saim lëndëmal kanam gi yonent bi ne ko koor du mbugal koor jaamu yàlla la koor warul tax nga tëdd di nelaw fajar ba guddi koor warul tax nga tayal koor warul tax nga salte koor warul tax nga tilim koor warul tax nga bañ a sang koor warul tax nga changer comportement mer kenn mënu laa jege parce que da ngaa xiif déedéet koor dafa war a tax nga jàng ci li yàlla tabaraka wa taala jàngale pour ëllëg boo dajeeg yàlla tabaraka wa taala mu fay la looloo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne wasbir wa ma sabruka illa billah muñul waaye dara bum la muñ loolu dul yàlla wala man sabara wa gafara fa inna dalika la min azmi l umur ya ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa bassiri sabirin yëpp ay aaya la yàlla mu ngi wax njëriñu muñ muñkat yi borom bi ne muñal waaye bu la dara mun loo lu dul yàlla mooy li ñu doon wax saa bul dugg ci koor ngir jéngu bul dugg ci koor ngir nit ñi dañoo woor bul dugg ci koor ngir dëkk bi yëpp dañuy woor naa woor su ma woorul rek déedéet wooral ngir yàlla muñal nga woor ngir yàlla borom bi ne képp ku muñ képp ku jéggale képp ku jëllale man yàlla tabaraka wa taala dinaa la jéggal te yàlla nee na muñ dafa bokk ci mbir yi gën a kawe borom bi ne bégalal muñkat yi wa bassiri saabiri ñi muñ ba def jaamu yàlla yi ni ma leen ko santee yow muhammad alayhi salaatu wasalaam nañ leen bégal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa man yatasabbara yusabbiruhu llah wa ma utiya ahadun ataan azamu wala awsau min assabr yonent bi nee na ku muñ yàlla def la muñkat yonent bi nee na yàlla joxul kenn may lu gën a rëy lu gën a yaatu lu mu jox muñkat yàlla li muy maye ci ay xéewal yàlla li muy joxe ci ay tiyaaba ñi gën a rëy ñi gën a yaatu ñi mu jox mooy muñkat yi moo tax doomu aadama même ci liggéey même ci jigéen juy sëy ci kër da ngay dégg ñu ne loo muñul ci kër gi du la fi fekk foog nga muñ liggéeykaay bi loo fi muñul du la fi fekk su fekkee yow premier jour bi nga xëyee la la waa ji ne baleel fii rek nga sànni bale bi génn sëñ bi diplôme bu ñu lay takkal ah nangam nangam bu ñu lay jox du la fa fekk kon ndeke jaamu yàlla bi foog ñu muñ ñi muñ ñoo ñooy ñi yegg ëllëg ñi muñ ñoo ñooy ñi yegg ku muñul doo yegg muñ nag mooy nga doxe yoon wi la yàlla bëgg nga doxe noonu waaye bul demee bul demee yow ni nga bëgg ndax boo teelee daw da ngay teel a sonn teel a wàññeeku déedéet àndal ak nit ñi rek siiru siira du'afaa'ikum dox leen dox ñu ñëw doole allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaa'i wa arina albatila batilan warzuqna ala jinabi mbokk yi yal na yàlla yërëm omar ibnul xataab radiyallahu anhu moom mi waxoon ne wajadna xayru iishana bisabri ñun de sunu dund ñun saxaaba yi àndoon ak yeneen bi sunu dund li ci gën a rëy liñ doon bégloo ci sunu dund mooy muñ xam ngeen ne saxaaba yi bu ñu muñul woon du ñu ànd ak yonent bi ndax jamono ba yonent bi di woote amul kenn ku ñeme ñëw ne man damay ànd ak yonent lu dul ku nangoo muñ moo tax amul lu ñu leen deful rey nañ leen dóor nañ leen génn nañ leen seeni biiri kër loolu tax sax ngeen gis yonent bi gàddaaya Makka jëm mitin faatoo foofu juddoo Makka faatoo ji mitin ku mel ne Musab ibnu Umayr nga xam ne démb Makka mbedd mu mu jaar parfum mooy xëy xale yu jigéen yëpp yéwénoon nañ Musab nekk seen i borom kër baay yëpp mébétoon nañ Musab nekk seen doom yaay yëpp bëggoon nañ loolu Musab démb bu solo ba génn ñëpp taxaw di ko seetaan Musab mujj na biir Madinatul Munawwar saaku lay waddoo saaku ay saaku la Musab di waddoo dem nañ Uhud ñu rey ko bi ñu gasee pax bi ba mu xool bu ñu xëccee saaku bi mu woddoo bopp bi feeñ suñu yóbbee saaku bi ci bopp bi tànk yi génn yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xëcc leen saaku bi ci bopp bi tànk yi ngeen mottale ko ñax wala waa jooju muñ ngir am ëllëg tiyaaba dajeeg yàlla yàlla dugal ko aljanna moo tax lépp lu mu amoon bi mu tuubee yaayam nangu ko mu nangu dem biir biir Madinatu Munawwara di woddoo ay saaku nekk ay jullit di woddoo ay saaku nekk jullit kon ñooñu bu ñu buggee mel ni ñoom dañuy jaar fa ñooñu jaaroon waaye duñ fi nekk di tappale di laqatu ci ay ginnaaw yi nit di laqatu ci ay mbooloo di laqatu ci ay kuréel yoo xam ne dañoo jàdd yoonu yàlla tabaraka wa taala koor farata la koor bu sunna joxe ndogu mooy sunna amma koor farata la soo déggee ñu ne woor joxe ndogu tiyaaba bu dul jeex la mooy da ngaa war joxe ndogu waaye wooroo ne da ngay joxe ndogu da ngaa perte sa alal jële ci coono amilatun nasiba Omar dafa gis ay nit yuy bokkaale ci benn église Omar di jooy sahaaba yi ne ko Omar da ngay gis kuy mooy yàlla ngay jooy mu ne waaw ñu ne Omar lu ko waral mu ne ñii dañoo sonn te duñu fayee ko ñu ne ko ban aaya la mu ne amilatun nasiba sonn te duñu fayee ko ku bëgg sonn yàlla fay la da ngay woor joxe ndogu waaye woor wooroo di nekk ci mbedd di lambambaam lambare di di di ne da ngay joxe ndogu wala ngay woo nit ñi doo ci am benn tiyaaba suñu bëggee tiyaaba dañuy boole ñaar yëpp suñu bëggee tiyaaba dañuy def li yàlla wax waaye gis ngeen ne réew mi sax ñu bëri wari nañ jàng leen rajo yi déglu leen rajo yi lu leen journaux yi jaay quatre restaurant yëpp ku nekk nee na bon trois jours yi rek laa amoon problème am mais léegi lépp c'est normal am na ñoo xam ne sax dañu ne samedi ak dimanche rek la am problème mais lépp lundi ba vendredi normal loolu fan lañ nekk ban dëkk lañ nekk loolu tax gis ngeen jafe-jafe yi réew mi nekkee du lenn lu dul bàkkaar yi bari du lenn lu dul jàdd du lenn lu dul ay jullit yu lànk ne duñu nekk jullit te xam ngeen ne yàlla du nag yàlla du nattu ay yéeféer yàlla ay naafiq lay nattu te naafiq mooy ku naan man gëm naa yàlla te du dëkk soo gëmee yàlla loo tere woon soo gëmee yàlla nooy xëdd ci biir kër gi lekk xëdd bi moomu jeex takk ñu yaakaar Dakar ko dëgg dem Dakar lépp ba suur añ ba suur ñëw di rey nit ñi wax tey koor gi tey naaj bi ni mu tàngee te xam nga ni wóoroo fan lañ jëm fan lañ nekk ci ban monde lañ nekk xanaa duñu ay jullit ah xanaa ñun duñu ay jullit ñun ay lan lañu nañ xoolaat lu ñuy def nañ xoolaat ñun ñooy ñan nañ xoolaat suñu bopp yàlla la ñuy liggéeyal ku nekk sa bopp ngay liggéeyal man amila saalihan fa li nafsihi dafa la ko kenn sa bopp wallahi ku dee yaa sa bàmmeel ba ñu commencé adduna bi ba léegi di dund gisagu leen ku dee yóbbu ko ba ci bàmmeel bi gas ba mu xool suul ko benn waaye ne bàyyi leen ma ànd ak moom bàyyi leen ma jéem kenn gisagu ko ku def lu baax sa bopp nga ko defal ku dugg bàmmeel sa bopp nga yaa yoo kese ya bañ nañ ko ba bañ la suulee yàlla lu muy wax tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw dallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayu alladi la amut borom bi loolu la lay wax suul nañ la bàyyi la fi de suul nañ la bàyyi la fi bàyyi wuñ la ak kenn te maay buur bi dund sa duma dee man lañ la bàyyel allah yàlla lañ muy bàyyel de cooli lu muy bari bari bari bu mbooloo bi ñëw ba ñu gas pax bi ñëpp wane ginnaaw kenn du taxaw kon nag ñaar rek ñett rek ngay àndal yatba'u may salaas wa yarju isnaani wa yabqa waahid ku faatu ñett gunge la ñaar ñi dellu kenn ki continuer sa alal ci buntu kër gi lay yem du dem ne armeel ya de ci buntu kër gi la alal ji yem oto bi montre bi yére yi jabar yi tout le monde ci buntu kër gi la ñuy yem ñan ñoo des ñaar say mbokk say xarit say doom suñ demee ba bàmmeel ñëpp taxaw kii da mooy seen baay waaw doom yi kan mooy ñëw gunge ko kenn du ñëw ana xarit yi ñu ne ñoo ngi nii ana sëriñ bi mu ne maa ngi nii kuy dugg déedéet moom kay nañ ko jox suñu borom rek te ñibbi allah nañ ko bàyyi suñu borom te ñibbi daal lay suul kenn rek mooy nangu dem kenn mooy jéem mooy al amal sa jëf sa jëf rek mooy jéem bu ne may ànd ak moom rek bu dee jëf ju baax mu dem bu dee jëf ju bon mu dem bu dee jëf ju baax mu ñëw yeru melokaanu rab bu baax ne xam nga ma nga ni ko déedéet mu ne maay say jëf ana amalu ko soole xaaral ma sëgg nga war ma ma jéggee yow siraat ñu dugg aljanna firdaws bu dee jëf ju bon mu ñëw ni yor rab bu bon melokaan ñëw ne la xam nga ma nga ni ko déedéet mu ne man la sa jëf ju bon jàngee histoire Malik ibnu Dinar Malik ibnu Dinar bandi la woon saay saay naankat sàngara njaalookat def lu bon takk der la woon mu dem ba war a takk jabar mu takk mu am juróom bu jigéen bu tudd Fatima musul jaamu yàlla musul julli musul woor musul sujjóot Malik Malik am doom doom ji nekk ci waxtu bëgg gëmewul doom ji su liggéeyee sa yenn saa yi liggéey bi waxtu du jot du day wàcc ñëw fab doom ji benn bis mu wàcc màndi ñëw fab doom ji sànni taf ci dënn bi sànni kapte taf ci dënn bi sànni rek doom ji war na ci dërë bi daal di dee mu am jafe-jafe mënatul normal muy màndi fu mu toll 24 heures sur 24 benn bis mu ne dinaa màndi màndi boo xam ne kenn musu koo màndi ci àdduna bi mu naan ba mënatul taxaw mënul xippi bët mu tëdd gént yow mal xiyaam jaam ñëpp taxaw ci kanamu yàlla ñu naan diw diw doomu diw diw taxawal ci kanamu yàlla diw doomu diw doomu diw taxaw leen ci kanamu yàlla ba rek malaaka bi ne ko Malik ibnu Dinar taxawal ci kanamu yàlla mu daw bi mu dawee rek jaan ji topp ko jaan ju rëy topp ko di ko bëgg a lekk daw bu mu daw jaan ji gën a gaaw loolu mu daw ba ci digg àll bi mu seen góor gu sol yére yu weex màggat mënu dara mu ñëw làqatu ci moom góor gi ne ko mënuma la mënuma laa musal demal balaa jaan ji di ma boole ak yow di lekk mënuma ko mu ne ko dimbali ma mu ne ko mënuma ko mu daw jaan ji moom rek la topp romb ñëpp moom rek ku ne góor gi fu ma jëm góor gi ne ko demal fële am na ñu fa nekk xëy na ñu musal la mu daw yegg si ndeke foofu jahannama la te jaan jaa ngi ñëw su tourné jaan ji lekk ko bu duggee jahannama al xelam ne naa dugg fii moo gën jaan ji li ma lekk beneen xel mi ne ko taxawal jaan ji lekk la moo gën a yomb beneen xel mi ne ko dawal amaana di nga rëcc mu daw jaan ji topp mu ñëwaat ci góor gi ne ko dimbali ma fi sabilillah jaan ji sonal na ma mu ne ko demal ci montagne bi am na ñu fa nekk amaana ñoo ñu dimbali la mu daw di song montagne bi mu dee ay xale naan Maalik ibnu Dinaar mu ngi ñëw ubbi leen rido yi firi leen rido yi Maalik mi ngi ñëw firi leen rido yi ñu firi rek mu gis doomam bu jigéen bi Fatima taxaw ci digg xale yi daal di koy séen mu ñëw doom ji daal di wàcc montagne bi daal di ñëw jàpp ci loxo ndeyjoor bi daal ne ko yaa abi yow sama baay alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubahum an taxsha qulubahum li zikrillahi wa ma nazala min alhaq ay baay baay bi jotagul ba léegi sa xol bi di toj nga jaamu yàlla ndax dëgg gi yàlla wàcce mu téye ci loxo ndeyjoor bi daal ne loxo càmmoñ bi jaan ji aca jaan ji daal di dëpp Malick daal di taf doom ji ci dënd bi mu ne ko doom yéen da ngeen a jàng alxuraan mu ne ko fii ñun ñëpp a jàng alxuraan mu ne ko waa jaan ji nag mu ne ko sa jëf ju bon la yaa ko may doole ndax lu bon rek nga def looloo tax mu topp la nii mu ne ko waa góor gi ma sel fekk fee mu sol nag màgget bu sol yére yu weex mu ne ko sa jëf ju baax la amul doole amul doole ndax yow jaamu woo yàlla kon gis ngeen jëf ju bon ndeke jëf ju bon ji ngay def yaa ko may doole looloo tax yawmal qiyaam looloo tax boo duggee bàmmeel jëf ji ñëw ne la sëggal ma war la nga sëgg jëf ji war la doo ko attan dafa diis dafa bëri nga bëgg a jéggi siraat yéen ñaar ngeen ne pëttax biir jahannam wal iyaazu billah Maalik ibnu Dinaar tëdd ndeysaan wàññeeku di jooy ci biir gént bi mu wàññeeku mi ngi jooy waaye mu dégg mi ngi nelaw mu dégg ñu noddu salaatu assalaatu xayrun min annawm te musul dem jàng mu yeewu mandi bi rees mu sangu jàpp tey mooy premier jour Maalik di dem jàng mu ñëw dugg ci jàkka ji dem première sàppe iliman kawbar jàng fatiha rek jël aaya bi alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubahum mais nafsu aaya bi doom ji jëloon mu yuuxu ci biir sàppe bi yuuxu daanu bi ñu sëlmalee iliman bi ñëw ne ko lan la mu nettali ko mu ne ko yow yàllaa la bëgg tuubal balaa ngay dee dajeg yàlla allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله